moom nee na bismillahi rahmaani rahim wasallama ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi sallam tasliman wajjahtu kulliya bi hamdin wa sukur ila waliyil muminina wa sukur kun ya waliya halim ya aziz lil muminina innaka laysa yakunu muminan yasaka manbiya wa hadamta sayyidal baraya ahmada wala anbiya wa rusuli aman fàttali ñu tur bi yaay booy la Seydina Muhammadin wa salim soxna sama maam la de li ma ci xam mooy maam Xaalima Jaxate Kala doomu maam Musa Daara Jaxate la ko yàlla tegee fii mu dem ba dëkk bu ñuy wax njëkk njaay mu jël fa soxna suñ naan Binta Njaay indi ko fii mu taawloo ci soxna Absa Jaxate du ko yàlla weddee ñu jox ko ma sàmm Fatimata Jaxate mu am fi jigéen ñu naan xujja Kumba Jaxate mu jur sama way jur Abdourahman Jaxate ma jur fi ji góor ca topp ñaan ko xaali Binta Jaxate mu jur ab sa Jaxate ma yóbbu Faas ca kër sëñ Aadi Touré loolu de xam naa ko ci moom ma sàmm ak xaali bokk benn baay Moussa Daara jur leen. alors ah, très bien mel ni bëri na ay kilifa diine yi nga xam ne jaar nañ ci euh, école am. waaw am na moom. est-ce que mën nga ñuy limal ay rek ci kilifa yi. mën na maa lim maam borom Touba de ak ku ñuy wax Serigne Saliou ak ku ñuy wax sëñ ma Massamba ñooñu de moom xam naa leen ci waaye xam nga ñeneen kii sama mag bu bu ngeen ko gisoon moom bu ngeen mu ñëpp ku ñuy wax Ami fii ci biir dëkk bi bu ko gisoon mu limal leen ko waaye man foofu laa ci yem. alors dëkk bi mu ngi nekk ci biir commune. communauté rurale bu bu. parce que fii bu ñaaxeen la. communauté rurale bu ñaaxeen waaw département Tivaouane. alors mel ni tey yéen a ngi waajal ay jàng yu rëy li euh, tey taxawaay bi ak tey bërëb bi nga xam ne sëñ bi fii la tëdd. Euh, ñu gis ko ci anam boo xam ne dañuy gis nguur gi toujours ñuy wax ni ñu ngi jàppale këru diine yi. ak mboolem kilifa yi li ni lan moo ciy doon seen woote ak seeni i kàddu. Ah, man de moom loolu moom wax dëgg yàlla daal moom kàddu yi jigéen laa damay nekk ci ay loxo xamu ci lu bari. waaye xam naa daal moom lislaam ak diine daal moom bëgg nañ ko fonk nañ ko ak boole ak bokk. waaw loolu daal xam nañ ko. ñu ngi lay jaajëfal waaw xam nañ ko.